لا إله إلا الله نبدأ باسم الجلالة محمد رسول الله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 ñi ngi fas yéene ñëw fàttalante ak yéen fii ci ëttu soxna yu baax yi ci warteefu doomu aadama suñu waxtaan bi jàll ñu ngi leen indiloon yar ak teggin indiloon nañ leen di way jur di yare njabootam ci siraatal mustaxim ak ci dëgg ak ci jóg ñi ngi yemoon ak yéen ci sallallahu alayhi wa sallam doon waxee naan bu ngeen bëggee ñi nekk ci kaw yërëm leen ni ngi yërëm ñi ci suuf si xayawaanaat ci ak xale yi ak ñi nga xam ne yéen a leen ëpp kàttan yéen leen ëpp doole ci wàllu am-am wala ci man man sallallahu alayhi wa ba tey mu ngi doon waxaat naan bu ngeen bëggee suñu borom subhaanahu wa taala yërëm leen na ngeen yërëmante ci seen biir kon ngeen gis ne yërmande ni mu amee solo ci dund doomu aadama ndax bu ngeen xoolee suñu borom subhaanahu wa moo njëkk a ñëw nekk di yërmande ndax yàlla. moom mooy aji yërmande ji suñ borom dafa fees dell ak yërmande arahman suñ borom mooy arahman mooy arahim mooy ki nga xam ne moom moo fees dell ak yërmande àddina ak yërmande alaxira kon suñu borom laataa muy bindu doomu aadama la ko njëkk bëgg la ko njëkk a yërëm kon ngeen gis na suñu borom bi mu bindee doomu aadama bind ruux yëpp teg amaanaam doomu adama la dogal doomu aadama nangu amaanaam googu loolu lépp ci yërmande suñu borom ndax ruuxu jinne jinne nanguwu ko ruuxu malaayika nanguwu ko yeneen ruux yi ci des yëpp nanguwuñu ruuxu doomu aadama rek moo nangoo yenn amaana ba suñu borom yëkkati ko ba mu tiim ruux yi des yëpp daal di koy teral dugal ko àjjana digal ko tere ko waaye aadama ba mu moyee suñu borom mu daal di tiit lool daal di jaaxle lool suñu borom daal ci yërmandeem daal di koy roofaat yërmandeem xelam nekk ci tuubal suñu borom mu daal di tuubal suñu borom suñu borom daal di koy jéggal loolu foofu yëpp da ngeen fay gisaa yërmande suñu borom subhaanahu wa taala waaye ba tey suñu borom daal nekk képp koo xamante ne nii balaa muy duggati àjjana da koo testé ba xool ko ndax amaana ba mu yenu woon dëgg la ci moom wala dëgg ci moom ci la suñ borom def balaa kenn demati àjjana il faut ñu teste moo waral suñu ñëw fii àdduna kon ñu xam ne àdduna dañ fi ñëw ngir jaamu suñu borom subhaanahu wa taala ndax amaana ba nga xamante ne ni moom lañ digaale woon ak suñu boroom ñu mën koo matal balaa kenn duggati àjjana suñu borom da koo teste ba pare kon suñu borom dañu indiwaat fii ci àdduna ci yërmandeem waaye ba tey mi ngi ànd ak ñun ci googu. mu indil ñu fi suufi juróom suuf si ñu ciy mën a dëkk di ci mën a bay indi ñu fi tam euh, jant bi bu bu mu daal di fenk bu ngoon jotee mu daal di mu daal di euh, so nga daal gis jant bi daal di dugg mu di ñu leeral suñu bëccëg bu guddi jotee mu indil ñu fi weer bi ngir mu di ñu leeral suñu guddi ñu ciy mën a xam tam suñuy weer bu weer teroo nga xam ne weer teru na bu weer deewee nga xam ne weer dee na bu bis bi jotee nga xam ne bis bi jot na bu subaa jotee nga xam ne suba jot na indil ñu fi tam biddiw yi ngir mu di ngir mu di ñu gindi suñuy yoon kon ngeen gis ne suñu borom toujours mi ngi ànd ak ñun rek ci yërmandeem googu bàyyiwuñu benn yoon ndax boo xoolee ne mi ngi ñu indi fii ci kaw suuf buñ toogee rek ba ab diir mu daal ñuy indil benn yonent wala mu ñu indil ñu lambiyaaw wala lawliyaaw yi ngir ñu ñëw di ñu fàttali suñu borom di ñu fàttali lan moo ñu tax a ñëwaat fii ci kaw suuf waaw ngeen gisaat foofu rek yërmande suñu borom saa yu rek suñu borom mi ñuy wonal mi ñuy won yërmandeem gi waaw mi suñu borom yërmandeem gi dafa yaatu lool ba wet goo boo côté boo ko xoo rek da ko fay gis ndax yërmande suñu borom yaatu gi mu yaatu kon ngeen gis ne yërmande suñu borom fépp foo ko xoo rek ko fay gis kon ñu bañ a naagu ñu bañ a naagu ci yërmande suñu borom ndax boo xoolee Iblis li tax tey suñu borom génne ko ci yërmandeem dafa naagu ci yërmande maanaam Iblis dafa naagu génn ci yërmande suñu borom ndax suñu borom da digal mu lànk féetéeral lànk féetéeral ba suñu borom génne ko ci yërmandeem kon ñun doomu aadama dañoo war a xam lan moo ñu indi fii ci kaw suuf muy jàmm suñu borom subhaanahu wa di fàttaliku suñu borom di fàttaliku yërmande suñu borom subhaana wa bu ko defee ni ñuy fàttaliku yërmande suñu borom subhaana wa mooy ñu xam ne suñu borom daf ñu bind ci doyadi suñu borom daf ñu bind ci matadi ñu doon ñu matadi lool ndax doomu aadama day juum foofu toujours suñu borom daf fiy wane màggam gee kaweem gi ndax day wane ne yàlla rek moom moo du juum waaw ndax doomu aadama moom mooy juum ndax suñu borom du ko bind ci matadi ko defee. boo matadee ba tooñ sa borom wala nga def loo warul def tuubal jéggalu bul fàtt yërmande su borom lu bàkkaar rëy rëy rëy boo ko tuubee suñ borom mën na la koo jéggal bul jàpp ne mukk boo tuubee suñ borom du la jéggal lu bàkkaar rëy lu bàkkaar màgg màgg màgg fexee la tuub fexee la tuubal sa borom ba doo ci delluwaat tuubal ko tuub gu mat sëkk yàlla ko ko jéggalu ko ne dina la jéggal ndax suñ borom moom mooy jéggalaakoon bi te suñ borom mooy mooy aji yërmande gi te suñ borom ku bëri yërmande la kon boo ko jéggaloo bu ne suñ borom dana la jéggal suñ borom benn bàkkaar rek la du jéggale mooy ki nga xamante ne da koy bokkaale te kiy bokkaale suñ borom dafa fàtt yërmande suñ borom moo tax muy bokkaale suñ borom subhaanahu wa taala kon ñuy fàttaliku yërmande suñu borom ji bu ñu tuubee ñu di di ko jéggalu ndax suñ borom moom moo ñu bind ci matadi bu ngeen ma tooñu ma di leen jéggal dinaa leen fi jële indi fi ñeneen ñoo xamante ne dañ may tooñ di ma jéggaluma di leen jéggal loolu lépp rek suñ borom daf fi wone màggaayam ak kaweem gi ak kennam gi ak matam gi ndax moom rek rek moom mooy aji mat gi waaw moom rek moom mooy ki mat kon bu ko defee ñuy tuub di tuubal di di jéggalante ci suñu biir di jéggalante ci suñu biir kenn ku nekk dawal yërmande ci sa digganteeg sa moromu doomu aadama ndax boo gisee ne boo tooñee sa borom mu jéggal la kon bu la boo bu la sa morom tooñee bu la jég boo ko jéggaloo bu la jéggaloo nga jéggal ko waaw ñu jéggalante ci suñu biir te bañ di toppante ci suñu biir waaw di dawal yërmande ci suñu suñu diggante ak suñu morom doomu aadama yi koo tane nga yërëm ko ngir jëmmi yàlla dimbale ko ngir jëmmi yàlla dimbal nag fépp la la mën a feeñ mi ngi mel ni tey jii nit ki xëyoon tey munul am dépense ñu dimbali ko ngir jëmmi yàlla daal di koy daal di koy dimbali ci dépense boobu wala tey ji nit ki tawatoon ndeysaan du am lu mu fajo nga dimbali ko ci maanaam loolu mu lu mu lu mu fajoo loolu lépp ci yërmande la ndax booy amul yërmande lu bari doo ko mën da ngay jiital yërmande su ko defee nga dimbali ko ci tawatam jooju donte yow amoo loo ko jox sax nga dimbali ko ci sa wàllu doole ngir mënut munut jóg munut tëdd nga di ko dimbali di ko yëkkati di ko tëral loolu lépp ndimbal la te it yërmande la ndax yërmande boo ko amul loolu lépp doo ko mën ndax lu tawat ji metti metti metti tam boo amul yërmande fi mu ne da nga da koy romb di dem ak di ñëw doo ko sax yëgal sa yaram waaw nga xam ne kon maanaam loolu yërmande la boo amul loo joxe tam nga dimbali ci sa kàttan wala boo amul kàttan nga dimbali ci sa xel ak koo mën di yërëm ci ci loo ko mën di tanee rek ak bépp anam gu mën di doon boo amee doole jooku ci dimbalee nga dimbale ko ci boo amee alal joo ci dimbalee nga dimbale ko ci boo amee xel moo ko ci dimbalee nga dimbale ko ci ngir sa jëmmi sa boroom rek tax waaw ndax doomu aadama yi fi suñu borom lañ te suñu borom dafa fonk mbindeefam yi kon jaamul sa borom ci mbindeefi ci mbindeefam yi doonu ni mbindeef yi ngay jaamu waaye dangay jaamu sa borom ngir ci mbindeefam yi di di def li la war sa diggante ak ñoom di def li la war sa diggante ak ñoom ba mu mel ne danga leen di jaamu te fekk jaamu woo leen sa borom ngay jaamu waaw ndax bëgg bi nga bëgg sa borom mooy tax lu bari doo ko mën lu bari danga ci lépp looy def rek ciy seet sa borom lépp looy def rek looy wax ciy xalaat sa borom kon lépp loo mën di def danga koy def ngir jëmmi sa borom wa taala dawal ci yërmande ba ci sa njaboot gi nga xamante ne moom ngay yor ndax ku ne xam na ne ëmb ni mu mettee ni mu diisay yor doom gën koo metti nga ñëw di ko yar nekk ak ñoom di leen yar di leen teg ci yoon loolu lépp maanaam yërmande rek moom moo ko lal yërmande moo ko lal ndax fekkonte ne yërmande amu ci kon fi ne doo ko mën ndax fi nga jaar ak moom fépp metti na metti na lool waaye toujours rek yërmande nga ngay dawal sa digganteeg sa njaboot googu mooy tax nga di leen mën a yor di leen teg ci siraatal mustaxim di mën a dawal li nga xamante ne moom la sa borom digal nga di ko ci def li nga xamante ne moom la ci sa borom tere nga di ko ci moytu li la sa borom digal ci sa digganteeg moromu doomu aadama yi nga di ko matal ngir jëmmi sa borom subhanahu wa taala rek tax Ah, ndax boo xoolee ne sa borom dalaa yërëm ba defal la lii lépp yow it yërëmal doomu aadama yi kon nañu yërëmante ci suñu biir ngir jëmmi yàlla rek tax waaw ah, mbokki jullit yi ñi ngi yem fii ak yéen ba beneen yoon suñu beneen jataay wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu لا إله إلا الله باسم محمد رسول الله خاتم الرسالة